jërë ngeen jëf ami téléspectateurs yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen seen leader bi di people 221. Euh, di nuy kilifa di ne kilifa aada yi di ñaan yàlla sunu borom may ñu kooru jàmm di ndokkeel sunu mbokki catholique yi nga xamante ni dimanche mooy Pâques bi di leen ñaanal yàlla dafa leen jàmmoo aussi. tey nag ñu jàkkaarloo ak koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réseaux sociaux yi fan yi moom saf na ci sàpp mu di Père Koundoul fas yéene si ak moom waxtaan ci côté santé am waxtaan ci xale bi nga xam ne tamit moom nañ ko dénk mu di Ada Fass Père lay bàyyi nga nuyoo ñu lay siiwur. waaw fay naa leen di nuyu waa dëkk bi di nuyu waa Sénégal ak waa àddina. d'accord Père fi may njëkkee muy fan yi ñu nemmeeku benn feebar boo xam ne dal na la mën nga ñu ñëwaatal ci feebar boobu. feebar bi daal booy yàgg nag. parce que xam nga sport boo ci defee presque trente ans musoo toog musoo noppalu bu yàggee day chronique ci sa yaram chronique boobu mu chronique boole ko pression bi nga xam ne moo doon làmb Ada Fass Zarko pression boobu moo mujj yëkkati feebar bi daanu bu ma daanoo dem sama kër mënatuma jóg mënatuma parce que moment boobu am na ko ànd ak Zarko kooku moo ma xëpp Zarko ci boppam moo ñu xëpp kiiw mbaam saw mbaam waaw waa ji daal ma sànni am na lu ma sànni bi ma demee sama kër daal laa xamatul fan laa nekk quoi alors ñu jël woo sapeur pompier yi ñu jël ma yóbbu ma quoi def naa hôpital deux deux deux mois. deux mois. gisuma autorité gisuma kenn ku dul suma jabar ma di ko gërëm parce que topp na ma ak suma doom ñu Amadou Koundoul topp na ma toppal nañ ma ba ma yàlla may ma tànn. bi ma génnee sante ko suma borom la mbër yi nga xam ne yore woon naa leen nag dama leen di remercier amuñu mais def nañ seen participation ba mu des Ada Fass. tey ginnaaw feebar bi ci wàllu jàppale yaa ngi koy wax léegi mu mel ni jàppale bi biñ ci doon xaar en tant que euh, ni nga taxawoo tey euh, mbër yi ku ci mel ni Ada Fass tey jàppale boobu noonu est-ce que amoon na seen diggante. mosula am parce que moi je ne triche pas am yore naa ko quatorze ans cinquante mille yu mat mosu ko teg suma loxo waxuma la ak vingt mille francs ki nga xam ne nag ñoo koy liggéey muy staff bi xaalis boobu bu ko jëlee ñun ñoo ko moom. parce que ñoo ko liggéey mais moom ci wàllu boppam mosul yëkkati un franc na ma père am te waxam jooju waxam sax laa bëggul en général di ci dugg parce que ba léegi waxul ci man kon lu ma wax ci moom rek dama koy tooñ man du ma nit kuy tooñ quoi. mais sa feebar est-ce que moom yëgoon na ko. mais yëg na ko. ba ñu wax ko ko bi muy takk jabar yeguma ko. moom ci boppam dama am yërmande ci moom wóor na Cheikhul Khadim dafa def erreur bu metti mooy ban erreur. waru woon takk jabar. ah wala ñaareel. ñépp parce que fi ko waafa Fass du ay takk fi ko waa Fass Fass séntu mooy mu dimbal la ndeyam tabaxal ko kër mana a ay rakam ñun ci la ñuy fier mais du ay jabar parce que comme ci neex tey na la may ma sama baat boo ko mayee sa ak lan def yëpp da nga koy daal di dugaloon ko fi ñu bëgg moo doon avantage am quoi. mu mel ni loolu noonu ñàkk conseil da koy waral. waaw boo déggul gis boo jëlee sa pexe bopp defe na xam-xam la dangay daal di réer mais boo toogeek ay mag ñu xelal dangay daal di gindiliku da ngay xam ne li la mag ñu wax loolooy fula loolooy fayda te looloo gën ci yow dafa dëgër bopp nit ku dëgër bopp neexu la yore. Mhm. loolu ci nekk. Mhm. d' accord dinaa ñëwaat foofu tuuti ma ñëw ci côté famille euh, yan relation nga am ak famille Ada Fass comme ay yaayam parce que koo xam ne yaa ko yor pendant quatorze ans ak âge bi nga toll nii yaakaar naa war nga ñu dem ba am euh, ay ay relation ak ñii nga xam ne ñooy famille am. bi ma ko yoree ak léegi musul ñëw ne ma kii mooy suma yaay. te ma dama dul topp mbër parce que Cheikh Raval du ma topp mbër ak loo mën a am lijjantiwu ma ko du ma topp mbër bëgguma sax xaritoo ak mbër li may xaritoo ak yow daal mooy entraîneur def ci yow loo xam ne bu ëllëgee bu ko nit gisee xam ne am entraîneur na lañ à part ça da ngay ma jaar droite man noonu laay demee ak mbër quoi. mais bi problème yi amee du ñàkk tamit ñenn ci ay xaritam wala ñi nga xam ne jege nañ ko am ci moom dogal waxtaan nañoo ak yéen pour jéem a def benn duo pour ngeen mën a toog. loolu bala mu doon neex président bi toog man la ci wax nee naa la man dama jóge ci feebar am na yu bari yoo xam ne daf may réer. te bëgguma wax di tooñ wala ma wax loo xam ne du dëgg. dëgg la noonu lay demee. Mm-hmm. mais bu fekkoon ne président baa ngi fi am na pour wax te buy wax ak yéen la leen di wax looloo nekk parce que moom lépp fii la ko fekk mais man fekk mu fi hôpital la mu fekk. Mm-hmm. mbër mu bëggee dégg daal mbër mu bëgg a dégg daali yi da ngay gëm sa bopp gëm sa toogaay. li nga xam ne mooy wàllu mbër mooy boo entraîné ba pare sangul lal sa basan caaxaan maase sa yaram bu lekk jotee nga dóor sa laax bu jaar yoon mën a teel a nelaw boo ko defee la nga entraîné day feeñ mbër mbër warul entraîné pare jënd dox yi day naaw dootu fa nekk man nga nekk nii rek mais dootu fa nekk. géttu mbër. ah. géttu mbër. géttu mbër mooy tëdd nelaw tëdd nelaw mooy géttu mbër leneen li ñuy def yëpp caaxaan la mooy entraîné pare jënd dem dox yi entraîné pare fu nekk nga dugg fu nekk nga war ci war ci amul sens. mbër da ngay tey mbër da ngay lëlu mbër doo bëgg sax ñu gis la. tey soo ma doon comparé la mi nga yoroon pendant quatorze ans ak Ada Fass mii. non bokkul franchement bokkul parce que kii deme xelam te bëggul ku ko xelal da ngeen bokk xalaat noonu la fa demee. moom ci boppam. li ma koy ñaanal li ko topp yàlla na ko bàyyi. ki ko topp. yàlla na ko bàyyi. saaba déet. caaxaan yàlla na ko bàyyi parce que toom la joo xam ne je l'ai estimé mais li tubaab jox wax l'erreur est humaine delluwaat ci sa gétt te bañ dugg ci ay caaxaan dafa am ay xarit yoo xam ne du ñu ay xarit. dañ koy jàppee ay xarit mais duñu ay xarit la bu ma demee mbër bay nekk mbër samay moroomu mbër laay toogal ñoom laay waxtaanal. mais duma ànd ak naan du sàngara wala dugg katu boîte bu yàggee mu dévier la te looloo ko dal gis naa audio yu bëri ça m'a mais li nga xam ne moo nekk ci moom moom la rek ñun suñu club ñun ñoo ko moom te demewuñu noonu ñun dañu bëgg kuy dégg ak kuy gis ak kuy xool. tey Fass rafle woon du ma ne rafle mbër mais tey Fass euh, xale bu mel ni Ada Fass génn ci ñëpp am ci moom yaakaar ba buy bëre ñoom Gris Bordeaux ña nekk ci kaw dañuy bàyyi seen lépp ñëw gunge ko comme kuy ngemb benn tigre euh, avant ak tey lii xew nii est-ce que yaa ngi am yaakaar ba tey. yaakaar ci kan. ci Ada. man sama yaakaar tas na ak moom. un gosse de vingt cinq ans ngay takk ñaari jabar sama yaakaar ji moom tas na. mënatuma ko gëm quoi man ki ma gëm te mu te mu am yar am dégg am gis-gis muy booy njaga da ngeen dégg. da ngeen dégg beneen mbër boo xam ne day feeñ ci écrit face benno un gosse très chic un gosse du ku ñëpp bëgg mu ngi ci mu ngi ci écrit face benno du aada rek mbër yaa ngi ci biir c'est-à-dire moom moom moom moom moom la moom la ñu séntu woon que ne kii dana remplacer mu Gueye ci Fass. waaw dëgg la mais dafa décevoir ñëpp. booy ànd nag da ngay ànd ak ku baax. mu mel ni àndandoo bi dafa dafa dafa bokk ci li ko yàqal parce que yaa ngi koy répété lu bari. Euh, waaw. xam nga nit bu fekkee ne danga am complexe wax ko dëgg. lu lu ko neex rek ak lu mu bëgg a dund. yaa ngi koy sànq. nit da koy wax dëgg bu teyoon man na am lu ëpp lii ay ñaari jabar ñetti jabar tabaxal sa kër teg sa oto sa say million nga xam ne yaa ko fay boo fa xam ne am nga pour dugal ko fa mais dafa teel dafa teel un gosse de vingt cinq ans yow doo ko nangul doo ko nangul doo ko nangul man mi di waxee yow man mi di wax yow nii xalaatuma pour def loolu en tant que son entraîneur dafa tàggoowul def fi boppam kooku moom la engagé bu neexee takk téeméeri paam kooku moom la engagé mais ñun liñ ko bëggal ñun la engagé te loolooy njëriñam. Ah, naka nga ñu préparé baam bi ak Zoss. ah loolu nag moom la engagé ñun bala ñoo wax ci waxu ah, entraînement entraînement. ñun suñu président danañ toog ak moom ci biir néeg waxtaan ba pare lu ñuy def ñu doo koo def euh, man pour l'instant ni sama wér-gu-yaram lay sàmm ko kon combat bi ak Zoss jëlagoo leen ci benn décision. Ah, franchement il nous a il nous a ba tax na duma ci mën a wax lu sori quoi combat am daal combat la. moom la engagé moom mooy toog ci digg géew bi man munatuma ko entraîner. naka nga gisee ëllëgu Ada Fass ci làmb. mënatuma koo xool booy mënatuma ko xool te duma ci wax loo xam ne xaw ko moom la engage nee naa la problème mu Ada boo ma ko waxee ma di la ci tontu sax daf may metti parce que yow suma rakk nga mais bugguma ci wax. te waxoon naa la nee la lu jëm ci waxu Ada Fass bugguma ko suma waxu feebar ak suma waxu suñu waxtaan man ak yow bu ñu dugg ci cadre boobu ko parce que am na ci ay membres yoo xam ne ci écrit face benn la ñu romb ñu ngi romb nii gis ma ba téye micro ñu ngi sànni seen grande gueule dañuy defee ne lu may wax lu nekk rek ci problème mu la mais intéressé wu ma Ada Fass intéressé wu man yow bi ma ñëwal di ma laaj sama côté santé ak feebar bi loolu laay tontu sama diggante yow mais Ada Fass moom franchement bëgguma sax du ci dugg parce que defuma dara boppam la def kon du ma ci lu ma ko wax dama koy tooj. d'accord léegi ñu jeexalee ci Ada Fass euh, euh, ngay woy juróom jàkkaarloog moom muy sa doom lan nga koy wax. na delloo si boppam xool ay nawleem ne mu ñi teg nawle du ñu ay nawleem ay nawle mooy ñi ko bëgg muy waa Faas ba ñuy xale ak moom ñoo toog di fo ak ñoom di nga xaritu tey bu taxee nga bàyyi sa xaritu démb erreur bu rëy mën na la jot parce que jikko yu bokkuñu mbër daal na am sérieux te am dégg ñu la yore nga fonk leen respecté leen parce que fi ngay dugg ba tey ba dégg ñaari dërëm wala ñetti dërëm ñoo la fa dugal te mën nañ laa dugal feneen fu ëpp loolu nga jox leen cër te di leen déggal mais boo bëggee demee je m'en fous mais dañ lay toog te ñuy toog à l'écart parce que doom nga rek comme yenn doom yi boo rewee ma bàyyi lo ànd ko yaru loolu rek la d'accord am na solo moom laa dalaloon fii mu di Père Koundoul di ko ñaanal yàlla sunu borom euh, defal ko jàmm ak salaam di wax bonne volonté yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu nañ ko jàppale parce que sunu père te vraiment dafa feebar. feebar bi nag euh, vraiment jéggi na dayoo tey euh, lan ngay xaar ci ñi nga xam ne bëgg nañ la jàppale ak autorité yi lay seetaan aussi. ki ma bëgg jàppale daal te yàlla tax te mu nar koo def ngir yàlla ak yonent bi mm-hmm. sama numéro mooy 77. 719 34 18 bu ma wooyee rek dana ma jot. te lu ma yéene aussi tamit jox ma ko danaa ci jot te maa ngi jógee maa ngi orange moo nekk. na yàlla defal jàmm. allahumma amiin xam naa foofu laa jaaroo. nga tàgguwaa tàggoowaale sama père. yow moom dama lay daal di gërëm. ndeysaan sama père gërëm nga àndal. sama père nga. sama ñaan na gaawul. mais bu ma ñaanee yàlla ma jo yàlla suturaal ma. ndeysaan. defal leen ko. allahumma amiin yàlla na ngeen yàgg ci seen liggéey. allahumma amiin. yàlla bu leen am pakkastalu. allahumma amiin allahumma amiin. leen ñaanal fan gudd ak wér. allahumma amiin allahumma amiin. may leen sutura àddina ak bu àllaaxira. amiin yaa rabbal aalamiin. lenn nag naa la ko wax. maa gërëm sama jabar. te duma ma di ko wax. ndeysaan. c'est une boo xam ne xol bu yaatu la yore ci man. dëgg la. bëgg ma lool. Mhm. dama koy ñaanal ay ja ay doomam yàlla nañu barkeel. allahumma amin allahumma amin. yàlla na ko yàlla may sutura àddina ak bu àllaaxira. amiin amiin amiin foofu laay tàggoog yow. amiin amiin merci beaucoup noonu am na solo ma koy nuyu sama yaay jooju vraiment dañuy wax ni. Euh, euh, nit bu baaxee mbokk yaa tax mais tey mu doon jigéen nangoo toog di dégg li lépp ba pare nekk ak père di ko muñal donc kon duñ def lu dul di ko ñaanal. yàlla sunu borom gën koo may xolu muñ ba yaakaar gi nga xam ne am na ko ci njabootam yàlla sunu borom euh, mottali ko en tout kontaan nañu di ànd ak sunu père di ko ñaanal yàlla sunu borom gën koo defal jàmm ak salaam numéro bi mu ngi noonu di daw képp koo xam ne soxla nga ko rek bëgg ko jàppale soo ko woowee dina la teg ci ay conditions yoo xam ne mën nga ko jàppale di jox yeneen dëgg daje sunu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf